benn moo rek moo am pour qualifier yi pour Kaolack fii mooy exceptionnel maa haaza moon yàlla lii du neenu mel neenu mel du yàggee lii lii alal mënu lii ab leer la buy di tabbil ci ay xol ñu jëkk seeni xol bu baax a baax ñu ngi koy yëg bu baax a baax a baax lii responsabilité la. toogal fii ci conscience bu baax a baax a baax. yaakaar bi foor na. yal na ko yàlla jëmal te sàmm ko. amiin amiin amiin amiin. yéen a ngi rëy na. yal nañu yàlla doxaloo ba ñu wan leen suñu yéen a bu ñu am ci yéen ak ci Sénégal. mbokki Kaolack jaar nañ fu ne ci biir Sénégal. boo waxee ñun la ñuy jël yow mobilisation bi gisaguñu. moom bu waxee ce sont la ñuy jël. non mobilisation boo xam ne battre na tous tous les records de mobilisation. mais ci xaaju bu xaar bëgg a saafoonte ak ñun. le jij kijkt dat destijds die lekker best wel de campagne électorale pour l'élection présidentielle 2024 dañ peut marquer en lettre d'or des caravanes des candidats à l'élection présidentielle. Mahaza. lii dinañu neen ndax neenu neen du yàggee nii sama gars yi amuñu seen fay gis nañu ne que yéen seen yéene. mooy projet bii le 24 mars 2024 bii dee nodde résultat yi turu coalition Bassirou Diomaye Diakhar Faye di jub ci kaw di fekk ci kaw à 6 heures sànni karawaas yi raw leen ba dootul ñoo jaarati bu mukk mukk mukk mukk ndax lu ñuy proposé ak ñoom lu ñuy yore dafa bokkul xam nga ñu jox la 12 ans nga yor. ñu éprouvé la nga wone ne ab télé nga toog ba 2024 ne joxat leen ba xam ngeen du loolu la ñuy naxari bu ngeen bëggee jub di jub ngeen bëgg si ni ñu yore rew mi mais dénk leen ma fi jubantiku loolu rek ngeen bëgg dénk leen ma ma dénkee teg réew loxo yu set ay loxo yu wóor ay loxo yu sell ay loxo yu wóor ay loxo yu jub di jubanti jubal lii du n'importe quel candidat moo koy wax discours am méngoog jaar-jaaram ci bu mu sëqee yor alalu réew mi fonctionnaire milliardaire kenn du ko jox suñu alal yàlla wërsëgal